jërë ngeen jëf mbokk yi si ànd bi ngeen di ànd ak seen chaîne Actu Banlieue ngeen koy am tamit ci internet bi ci 3w actubanlieue point net bisimila ci xabaaru ay bés yi mbokk dañ koy door rek wàllum dem bi ak dikk bi autoroute Ila Touba àllarba gi weesu accident bu méttee métti moo fa amoon ba juróom-ñaari nit ñàkk seen bakkan juróom-ñetteel ba tamit fekk ci na leen mu nekk loo xamee ne lu doy waar trop bu ñu sukkandikoo ci journal bi nga xam ne moo nekk source a euh, conducteur bi maanaam ki nga xam ne moo doon dawal auto transport en commun bi da doon ndax dépassé woon sax li toll ci cent dix par heure ci jamono yi nga xam ne accident bi di am ki nga xam ne moo doon dawal oto bi tamit dafa bëggoon a eh, li nga xam ne moo nekk benn oto private maanaam oto benn oto privé bu nekkoon ci kanamam ca jamono yooyu nag bi mu ko doubler yem ci benn camion bi nga xam ne moom mu ngi doon doowee ndànk-ndànk kon mu mel ni këru taskatu xibaar gi nga xam ne moo nekk source a mu ngi leeral ni liñ doon wax ne camion bi dafa taxawoon ci li nga xam ne moo nekk ci biir autoroute bi daa paanoon taxaw doon mu ngi daw ndànk-ndànk bi nga xamee ne auto transport en commun bi romb na auto privé bi ci la daal di yem ci euh, camion bi ba juróom ñaari nit ñàkk seen bakkan ci àllarba bi weesu euh, tey ji tamit ci ajjuma ji juróom ñetteelu nit ki tamit ñàkk na bakkanam ba léegi bu ñu sukkandikoo tamit ci li nga xam ne moo nekk këru taskatu xibaar gi mu ngi ñuy wax ne ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen i bakkan ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ci quartier gannaaw raay euh, fee ci diwaan bu Thiès ñëpp nag dañoo bokkoon ci benn daayira bu tudd tamit mboolem waa Thiès rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira euh, fulkul masuun gannaaw dem bi ak dikk bi tamit dañuy dem ci wàllum xar géej gi ki nga xam ne moom moo nekk Kunkande gannaaw bi mu fi defee déclaration nee na dina xar géej gi ci bésum tam bi waaye ca gannaaw loolu noonu démb ci alxames gi dañoo gis ne euh, ki nga xam ne moo nekk Kunkande dem ci fecca géeju Soumbédioune bi di jël gaal ñu bëree bëri jàpp ne Kunkande dafay daw ñu bëree bëri tamit nee nañ Kunkande xëy na dafay dafay wàccaay li nga xam ne moom moo nekk bésu tam bi waate dellu si waat borom rismon ji Aziz ñu gën koo xam ci Amina Poté moom amaat na borom yoon nag moom moo nekk ñetteelu yoon muy am borom kër Amina Poté dafa nekk aaw buuru ki nga xam ne nag moom moo ko takk nekk xaritu Youssou Ndour mu nekk loo xam ne groupe Futurs Médias ñëpp ñu ngi koy euh, ñaanal sëy bi mu doon sëy boo xamee ne sëy bu am bar sëy bi nag ñu ngi ko takkee fi nga xam ne moo nekk cité Damel moom Amina Poté bi ko suñu naataango yi tàllali micro bi moom dafa ne moom daal mu ngi kontaan bu baax baax tey jii fépp foo xam ne mën natt ay kontaanam daanaka weesu na foofu noonu xam ngeen ko baccalauréat 2021 bi amoon na coow lool rawatina fi nga xam ne moo nekk diwaan bu jurbeel dañoo gisoon ab benn étudiant solu comme ab jigéen moom nag bi ko surveillant yi tegee loxo dellusiwaat na ci nu mu gën a ci li nga xam ne moom moo waral arrestation bi ak li nga xam ne tamit moom moo waral mu daal di jël euh, ni jigéen mu daal di ko solu ngir fas yéene dem euh, teewal ki nga xam ne moom moo nekk xaritam bu jigéen comme ni mu ko waxee mu ngi leeral ne tamit xale bu jigéen bi mosta nekk ab corom ab xaritam la ne xamle na ne tamit moom saa yu ndimbal jotee rek moom da koy def ci gàttal daal moom mënul seetaan benn doomu aadama boo xam ne da koy gis mu daal di nekk ci ay jafe-jafe rawatina mu sàkku ci moom ab ndimbal mu daal di ko ko blanka bu nekk jëf joo xam ne ab gulet mu xew fii ci réew mu Sénégal ab góor boo xam ne solu kom ab jigéen di teewal ab copinam ci biir eh, classe d'examen mu nekk loo xam ne fit wu rëy lool waaye nee na bi mu demee ca prison bi nga xam ne moo nekk prison bu Jurbel daal dina fa lu bëree bëri na benn une nouvelle expérience boo xamee ne sunu borom dénk na ko mbokk yi li ci gën a doy waar nag moom nee na bi mu tëggee deal bi ba pare moom xale bu jigéen bi ci alxames ci suba ci nga xam ne Europe euh, Anglais yi ci la ñu waroon a démarrer baccalauréat 2021 bi dañoo dem ci benn auberge mook ndaw si ndaw si nag moom moo ko jox yëre yi daal di ko tamit solol bu baax a baax ndaw si toog tamit ci biir li nga xam ne moom moo nekk ci biir euh, auberge mu doon loo xamee ne tamit lu xaw a bett lool euh, sénégalais yu bëri na li ni moom la représenté woon dem ci saal yi fas yéene koo defal examen baccalauréat fa daanu woon malaise bi ne suba la baccalauréat yi loolu moom moo taxal mu jël initiative ngir daal ko représenté ñu bëree bëri tamit nee dafa amoon benn auberge boo xamee ne foofu la nekkoon mook ndaw ji moom nag weddi na li ni mel ndax nee na kër dëcc la kër dëcc nak moom mooy fi nga xam ne dañ fay louer ay chambre boo ñëwee mën nga faa fanaan wala nga daal di yendu euh, fay daal di dem sa yoon foofu noonu la ñu demoon te leeral na tamit li taxoon mu daal di dem foofu noonu nee na li taxoon mu mu ngi war a def baccalauréat ba noppi tamit toog ci yenn barab yi mën nañ ko faa fekk kon nag mbokk yi mu doon loo xamee lu doy waar torop ak lu mu ci mënta doon rek Actu Banlieue mu ngi leen di jox dig daje fan yi ñu jëm bu àndeek ndogalu sunu borom mbokk yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlaloon ci xibaar ci ay bés yi ñu ngi leen di fàttali ngeen bañ a fàttali nga xam ne moo nekk abonnement bi lu ko moy mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak saa su ne ak seen chaîne de toute l'actualité